Euh, bismillahi rahmaani rahim dañuy def benn panel ci nga xam ne dafa aju ci wàllu xam-xam ak wàllu science pour ñaari feet yeeg ñetti feet yi tabaski yi ak kore yi ñu ne conséquences religieuses yi mu am ndax alxuraan dafa ne wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu na ngeen bennoo loolu moo tax ñu ne nañ def benn panel boo xam ne borom xam-xam yi ñoo ko seq léegi nag man en tant que co-coordinateur de la commission lu ma def rek xam nga day engagé commission bi te ñoom waxoon naa leen ko ñoom yëpp yëgaleen naa leen ko ah ñenn ñi d'accord nag ñenn ñi bañ a d'accord mais ñun lii affaire xam-xam la correctage correcte gi mi ngi waaj a jub si te ñaari fête yi paye au chômé baaxul économiquement baaxul religieusement baaxul socialement benn kër ñaari nit tabaski kii tabaski tey kii tabaski ëllëg kii correcte tey kii correcte ëllëg kooku du diin islam xale yi sax dañuy jaaxale aussi sur le plan économique de fait paye au chômé baaxul ci économie réew te ñun waa réew mi lañ sur le plan religieux bennoo gi nga xam ne mooy symboliser les fêtes religieuses loolu ñaari gri yi bokk yi daf koy eh, yàq l'islam loolu taxul fenn ñëw kon ñun ci cadre boobu la waxoon dafa woon panel bi muy nekk panel boo xam ne panelu xam-xam la panelu jàngale la mais du question ay commission bi kii lii kii lii kii lii ndax commission bi ku kenn ku ci nekk am na domaine boo gën a foore ñun affaire gëstu ak xam-xam yooyu mooy suñu wàll te du ñu bàyyi di xaar ay rek di wax ci affaire weer ak ci affaire xam-xam waaw objectif commission bi daf ci bokk vulgariser les mois musulmans wax xam-xam yi ci nekk wax njariñ yi ci nekk woote pour ñaari fête yi tabaski yi dañ fi ñaari korite yi dem ci dañ ci dañ fi kon ñun loolu moo taxoon ñu def panel bi yëgal nañ ko ñëpp nag waaw waaw kon nag man loolu assumé nañ ko ah du ma caché danaa caché ak su ma caché bi nga xam ne moom laa yoroon mais teewul ba léegi man mbooloo mi ah maa ngi ci lépp li au contraire lii ñu def sax day dafa war a dëgëral mbooloo mi normalement ah, ndax ñu ci lenn loo xam ne lu yàq la ah, mbiru xam-xam la mbiru diine la képp ku bëgg diine bëgg xam-xam xam ne ñun loolu moom moo taxoon ñu def panel bi waaw ci gàttal daal panel bi ay borom xam-xam yoo xam ne ñii ci commission bi dañ bokk ñi bokkuñ ci commission bi ñoo daje woon pour xool ah, conséquences yi nga xam ne ñaari feet yi dana ko indi ah moo xam korité wala tabaski ak ñaara ñàkk warandoo bi ñu xool ko sur le plan religieux sur le social waaw loolu daal mooy mooy kii bi nag keneen ku ci wax leneen nag da ngaa wax leneen rek waaye lii daal mooy objectif objectif bi hmm. waaw waaw mun lay euh, accuser nee na aussi da ngay utiliser papier commission bi muy cachet yeeg tampon yeeg ak euh, euh, en bi waaw commission bi xam nga récépissé bi man maa ko yor sama tur moo ci nekk man kenn gënu ma valable ci commission bi waaw léegi nag sama cachet bi ma yoroon ah, lu may bind dama koy assumer dama ci dama koy signer yooyu y a pas naa ko ah ñoom ñëpp yëgaloon naa leen euh, commission bi ma signé ko loolu amul lenn luñ ci nëbbu waaw ah, ndax dafuñ ci lenn lu aay ministère de l'intérieur la ñu bind lettre yëgal ko ko waaw yëgal nañ ko ministère de l'intérieur xam nga bu booy def dara doo ko doo ko nëbbu ministère de doo ko nëbbu bu fekkee ne yónnee nga ko ministère de l'intérieur ñoom la ñuy yónnee suñu lettre yëgal leen ko carrément que officiellement ñun lii dañu koy def waaw kon ñun loolu waaw si tàq bi moom loo ci wax ne nee na day proposé. pour que ah, ñu tàq non non xam nga euh, euh, euh, mënuma moom moom dafa nekkul membre sax ñun dañuy dañuy jubóo suñu biir ba waxtaan waaye moom mënul dàq kenn mënul dàq kenn ndax moom itam turam nekkul ci récépissé bi jubóole nañu nag ñu ngi man du ma foofu du ma ko tontu kooku commission bi ñoom ñooy daje loo xëy na ñoom wax ku ñuy génne wala ku ñu dul génne mais kenn ni mënut a taxaw ne dañuy dàq diw wala duñu dàq diw waaw moom moom moom moom la. waaw donc mbooloo mi ñoom ñooy décider loolu mais moom kese mënul taxaw ne dañuy dàq di wala duñu dàq di waaw man foofu du ma fi polémiquer parce que comme que dañu doon jubóol it bëgg moom moom mooy toujours mooy wax loo xam ne mooy tasaare man li may wax toujours dafay dajale di fédéré waaw moom nag bu fekkee loolu moom moom moom la engagé na ko assumé waaw mais man loolu dama koy bàyyi du ma si commentaire